bismillahi rahmaani rahim dinaa ja dem tool te boo demee tool samay ti bon lool li ëpp naa def lii dal di koy tuub yow mbaate doo góob te luy teree góob def koo di ak ngot fajar bu dee xar booleen kurus gor war naa ko bu jër dara ku tey jóg nelaw ba bët set du maye ak set lu dul maye ak set ma guru koo def di bëgg ak fay tey bëgg ak may te naru laa bay niru nga ab dog ku dul fiyaara te bëgg daara akum fiyaara agal dafay kaf yaara yi weer dem jekki ay weer du may murit leer du ko mayit lëg ku bëgg a far lëg da farlu ak lëg ku farlu lëg du mën a far lëg ku bëgg daara akum siyaara dafay siyaara ànd ak jura jëf xamal ni kuy jëf ci tàng doo faj gàcce te doo daj ngërëm te doo faj yow boo bëggee daj ngërëm bu fay gëj sëriñ ku fay gëj du dégg jaajëf amar yorey goj te yooru lab goj mar walu koy faj xawma ko mën faf murit dafay gëm te topp sangam di dab ba neexam di ko yëg yi yëpp di ko liggéeyal fa waka neexal ba làkk ak sol di gis gu lay sëf ku làkk gul lii tuuti wut lii lay tax a am lii kenn mënu koo këf ku bëgg am lii nga balu dul lii tuuti wut lii day daw ku koy këf nit dafay dem mbaate ndawam dem mbaate du am ndam ku nekk ndam af yow bala ngaa gën kenn sori bon andul ma way man taalum murit af murit dafay gaaw ba mel ni ku naaw loo wax mu naa waaw ku dëkk tis tis te bëgg sangam ba fàtte boppam te fàtte léppam nooyee ni ku ngub waye si new sol di tuute bay mel ñu dal yoo sol du jekki bay rab ku jëm mu màggal ku mag ñu sukkal te ndaw mu njuugal ëskee jii jëf tey banki tànkam di faj ji lootam di fonki maasam di faj ji nit xef bu benn muy xëy ba jëmaleñ mooy te loo ko mooy nuy du la mooy tef day mel ni am néew ku mel ni réew néew gis naa ko fii daaw baroy ko man lépp te maa ngi sant bamba di sant yeneen di sant yàlla mi lay def ma tagg bamba ak waxi bamba ak jëfi bamba ak jaayi bamba bamba di kenn waxam di genn jëfam di genn kenn du bamba gisuñu kenn xamuñu kenn dégguñu kenn ci niru bamba gisuñu kenn xamuñu kenn dégguñu kenn ku mel ni bamba bamba du maasum fére du maasum buura ci càngam ëppee bamba waxam gaday set jëfam gaday set jëmmam gaday set tanga di bamba foo fekk waayam day gëni baayam gëni nijaayam ci waayi bamba ku àndul ak moom daalu dul moom yàlla bëggul moom te dëddu bamba bamba damaa yar ba maamul yar te tegunul yar naa sant bamba ku bëgg yàlla ak topp yàlla ak xol bu sell na fekki bamba xam na boroomam am na boroomam raw nay moroomam ka def du bamba day fay di jàngal nit ba mu mokkal te du ko bindal te yàlla bamba ku bamba jàngal nga mën a jàngal képp ku dikkul yaare bamba ñëpp a ngi may yéem mën naa ngi lay yéem mu bokk la yéem yéem nga bamba ñëpp a ngi may soow mën naa ngi lay soow mu bokk lay soow yaare nga bamba jëm nga ci yàlla jëme ci yàlla ñu topp yàlla jaajëfe bamba yéefar yi tëm na jullit ñi tëm na ku nekk tëm na wuppi la bamba yéefar ñi day roy jullit ñi day roy ñu baray ak roy ngirtale bamba mu nee fulaa rey mu nee fulaa roy te nga rey ak roy xalaata bamba wala fa daa roy bàyyi na laa roy ku daa sefee rey bana la bamba mënuñu laa roy mënuñu laa rey yow yaa rey may marxaba bamba man jéem maa rey te jéem maa roy damay tefee bay sa tooli bamba démb amoo maas te ji amoo maas doo am ëllëg maas kenn nga bamba defar nga képp defar nga lépp defar nga fépp bokkoo ci bamba kaloo ja dem na sa coono wéy na sa fay gi ñëw na du jeeti bamba dongan yi rot na taw tag ji jot na te kañ la jot na ma kañ la bamba xere nga fépp daq nga fépp wasal nga fépp ñooyal nga bamba Bonga ña xam na gabon ña xam na maa yomba xam na ñu mbër nga bamba lambar na xam na barwali xam na baafali xam na ñu bëgg nga bamba konaa ki réeki jaram bakaaki kabla bitaaki nga xam na bamba Dakar xam na waa Mbàkke xam na waa daw mi xam na ñu lëf nga bamba waa dex gi gis na waa jiir gis na waa fépp gis na sa jëf ji bamba te yàlla gis na yoneen ba gis na saaba ya gis na sa jëf ji bamba malaaka gis na jinne yi gis na gaa yëpp gis na sa jëf ji bamba kenn nga sa tànk bile fu nekk ngir topp rek yoneen ba bamba def nga lu nekk wax nga lu nekk daj nga lu nekk ngir yàlla bamba daa nga musul ñax da ngay musul ñax amoo lu dul ñax boobale bamba jël nga say kër bàyyi sa waa kër di saytu sa der yow rek bamba def nga ko ay at te tawatoo it bu naan yaamat a sang bamba dëkk ci soldaar di dunda kay waar yooyale soldaar def nga ko bamba dëkk ci soldaar di dunda kay waar yooyale soldaar def nga ko bamba te lu ñu daa waaj ak asakee maaj ngay jàpp kay waaj di julli bamba ñu naan kay foon nga ne ci saw yoon teew ci saw yoon ñu fatt bamba ba yàlla fay lee julli la loola fajal la loola ngay sant bamba dee nga ba dekki dox nga ba jekki yow daala tekki tekkil mu bamba sa ngor gi rëy na njiit gi mat na sa fit yi rëy na naw naa la bamba sa jëf gi rëy na sa jëf gi mat na ñëpp gërëm na sa jëf gi bamba yàlla gërëm na yeneen gërëm na ku ne gërëm na sa jëf gi bamba gërëm nga yàlla yàlla gërëm la yeneen gërëm la wàcc nga bamba génn ci mbir yi te jox la mbir yi nga saytu mbir yi moo defe bamba loo tere sa neef loo digle sa ngeef soo nekk nekkeef lii gëne bamba jox naa la saa mbir jubal la saa mbir saytul ma saa mbir nangoogu bamba bakkan da di noon addina di noon seytaane di noon musal mu bamba jangoon a banneex ku tax ku daa baax ku ñàkk ak baax nuru fa bamba yow nag nga say noon dàq nga say noon jàpp nga say noon ci kaw bamba yokkal sunuy noon dàqal sunuy noon buñ ci sunu noon mukkati bamba dugal nga say noon ba dàq say noon boo ci saw yoon luy doge bamba sa sox bi ñor na sa mbay mi ñor na sa jaj gi dënn tafe nga bamba daana nga sawra bëgg nga koy gis tabax fatee nag ngëj na bamba jëkki di waxtaan ñu di la ñeetaan nga di reetaan nga defe bamba jot nga ji fiy ndëkk ak jamono yi jot takkal taral nag su yéene bamba jot nga ji fiy ndëkk ak jamono yi jot takkal taral nag su yéene bamba ngir jëmmi yàlla ak jaay yàlla ñu topp yàlla sarax mu bamba sarax mu am fit yow mbaate ay tit mbaa junni bii tit tigal mu bamba sarax mu ak tit mu yow mbaate ay tit mbaa junni bii tit tigal mu bamba tigal mu ak ndab yow mbaate ay ndab mbaa junni bii ndab yakal mu bamba sabal sa jëmm defar sa jàmm ñu ñu ko yomb ngir yàlla bamba lu dul ñu yokket rekk ñu wakket ba du ngërëm kët jaay du ngir kët léegi du jekk yi day xëy di songe di gontu songe sutu koo di sërët di du ñu mukk du fande mukk du ñàkk nekk say xëy di gis nit farlu ko nekk war na ko nekk ngir nit ku nekk deegaa ngi koy wut ndaw ñaa ngi koy daw mag ñaa ngi koy daw ku nee ngi koy daw te ñëpp lay jot ku mu jotul tey jot la buru tey mi la wotoo tey bul jëm mu tey jot dén nga li daa xew te gis mi lee xew xam nga fasoo xew jaawal fexee set doo xam na say maam xam naa ne say maam daa ma too maam dana la xawiit dee kenn la dul ba donte dafay ba yeneen balay ba te ngeen ji aw nit mais daw ko dum xel mu fii ko dum xel xaw mu teeral jaalam ci say wet te xeel am yow ngërëm ak yiw te fa fen ak jëw fab ko bakkan nag na yaa fa soo dem fekk fa soo dem war na balaa dem am yóbbalam mat yokkal sa itte yokku gu metti tey daw yarante xaw ak bari jot loolu bari jot ngir ku bari jot kenn la du jot te ñëpp fa koy jot ku bari ak jot foo ko gis ak jot na nga ni ko fépp saytaane saa jot bu ko dawee xel dawee ko am xel ngir koo dawee xel mu xànni law yet ku bari am xel day dawe am xel nga di dawee xel di ngaa la wax jot ma jot caw yar ku amul lu yar ku amul lu yar mata caw yar koo xam ni loo wax mu teg ca ay wax yedee ko say wax ngay mu nga tey ner moo ana teggiin ak yoonu teggiin ak waxi teggiin da daa jubal mbir te waxe as mbaat mu teg ca as mbaat su bon ku tax mbaat kookee nga wax far te gii nañu jooy ñu nga ma ñu jooy yàlla ñu far jooy yëpp ak suñuy lor tey foo wax as lëf nit wax ci as lëf te di ca wax a lëf lu dul da ngay nar du la ni nar nga du la ni fen nga yow waaye gis nga te wax jamuy jor ndaw dootu ër mag ndaw dootu rus mag day dog naw du mag xañ ko këram far moo tax ba fan yi gàtt te may yi tuuti te moy yi baree ci kër kër te diine lay may gudd fan ak way ak jàmm ko doy moo lay may gur te diine gën yaay ci moo gënit baay moo gën bay jaay jàpp ko yow yor te diine gën yaay te moo gën it baay moo gën bay jaay jàpp ko yow yor moo ma ta taqool mu wax fa tàggool day na ta say moo telu coob yar moo ma ta taqool mu wax fa tàggool day na ta say moo telu coob yar rikkaatan lu mën a xew awal di jël teero yow kon di la làq yëpp yuus rek ëllëg maa la ko mboolem lu dee ci jëb diit yara ko gën gën koo rafet moo jara dox jimlu bia jiwut sëriñ bu la ko jox ku yaru rek a mat a xam ku yaru rek a mat a xam ku yaruwul matu la xam matu la xam turam wa sax ab yar mi tax amul moroom day tax a jën fa say moroom tay tax a jën fa sa boroom ku la yaruwul rek la nax ku la ma yooni junni it te bépp lu yar may la it léegi nga gis junni yarot waroon yar korkote sax ku yaruwul matu la yar ku yaruwul matu la yor ku yaruwul alku na far yar bu far tabal ko sax ak yar yamuwul ak dara ku ko amul amul dara ku ko amit nekkul dara lii di yar nañu ko jox ak yar la dee ci génne nit ak yar la dee ci suti nit ak yar la dee ci rawe nit ndedu alal ak rëy ya juddoo ci jur mat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo nga jootu gis baaxam nga sax te gis boroomam dootu gis boppante moom a dootu gis moroomu nit ki dootu gis dara ko wax waxu la rab te gis boroomam dootu gis boppante moom a dootu gis moroomu nit ki dootu gis dara ko wax waxu la rab moo tax ba yàlla ku ko am yow te kenn du ko xam te amul sëriñ ndaxam ku xam du weddi lii ma wax ngir yàlla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeraan te sëriñ ab kerkeraan asan jàppal ci gile wax yàlla jox mbooloo mu doy ñu di la gontal la ka xëy loo leen digal kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom bañaw siraatal mustaqim te fexe bañ jaam xadiim ba wér a wér teey mbaalu ko may yowmal xiyaam daañu la war ni jëggi mbaam mbaa ñu la naa la ak jaam ña nga waroon joxe ko tey ngay jéem a daw doo mën a daw mbooloo mi nëpp a ngi la gaw xaw ma ci yow lu may taxaw te jéem a mun gàcce gu rëy di jooxee lekk ba suur ba noppi sàng nag sa biir bu ñeeku dee si tudde buur te booba du fi ngir am nga nguur addina mboolem ñi ko am yëgal ni kenn du ci am dara lu dul li nga ci am ak cant war na la buur koo xam ne ëppale na la ay yëf nga am ëppale la ak coono coono ko na la ku ko amul bari nga muur koo xam ne moo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat boo dee lu ko amul nit ndare ma ngay tawat sa biir koo xam ne moo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat boo seer nit ko amul nit ndare ma ngay tawat sa biir addina loo ci am mu doy lu tuuti tuuti dal di doy mu réy réy di tax mu doy kuy sàkku addina du suur addina doy la du ci ne ak doy lu moo ciy xale ne koo gis mu am ci it mu ne bu fee am soxlay jóoru jóor ku kenn nit rek doyul am fukk terti koo doyal am junni terti koo doyal rabaañi nii soxal sa diir mbubb ak tubay bu la doyul xamal ni soxla nga lu dul loo topp yàlla ak ndigal ndigali mooy ko daal di buur ku soxlawul lu dul bay saa su añee na jóg bay te añ nga kat jógal bay sa daara jaa ngi nii di riir yoratu laa la jéelëf lu may di sant ak a def lu sa sëriñ yi dee ko def day mooy luy waralu koor sama yii ne te bari sant la sant lu bari sama nga kat gaa yi bari war ngaa jot ak cant gu koor bari tawat war na la yow ak cant yi di war na la yow ngir sëb sëriñ fay na la yow teg la ca kaw te jox la nguur te la ne wax mu nekk nguur di ñu la jox dëgg bu wóor nga ni ko ak doyloo di nguur te doy naa wala ci buur la ne wax mu nekk nguur di ñu la jox dëgg bu wóor nga ni ko ak doyloo di nguur te doy naa wala ci buur ndegam gaaya bay daalakal feetaañ ku xam gaaya duy bay pour lekk kon bu fekkee ne yow bamba may yi nga yor mu gën rekk ci jot na ngay def ñu bon bu fekkee ne baaxee amut lépp ci yow ne baaxul lu ñuy am ci yow ñu ci gën te yaa yor pour gaa yu baax ak yu bon faral jox ma jox ñëpp jox ñu ci man dangaa bay ba xëy dëgg say dàgg yow ñu mu wër la nag képp def say sagan bu la tax mu jël ñëw ci yow kat lu dul te yërmaande yërmaande lan seeni ñun danoo lii di yalwaa na cay wut ci yow yëriñ wut ca ak barke ak gudd fan te boo nee balaa kenn am lu ci man dafay mel ni lan bind la doo nit di kon ndeew doo minit dootu mel nii nga mel ku ji ñaa ngi wax ji toree naa ci kan waxal nag ci mbas muy sa nit ñaa ngi jee ñuy wéet ci yow dootuñu yàlla tin boo tàmm nee cell jur gépp jee bu jur gépp jeexee li ñuy tàmm kon ba nuy dëdd kër ba yëkk yi ndey di ñëw yi koy wut ci tax mbaalu ñuy wut ci kon ba nuy dëdd kër ba yëkk yi ndey di ñëw wutal nit ci tax mbaalu ñuy wut ci kon ba jëm man te dee yàlla ak sang bi ba day yëpp booloo ni xam dañ nelaw te dee yàlla sax kat balaa neex nga ni ba mbooleem ku doon toowa kay war kelam li muy bëgg dee yàlla nag buy dërëm du ay soxna day sax du ay taaxi kaw du ay tool ak i dagg duy kër yu rëy du mbooloo mu may dox di santoo kaw du lay ràppa kay tax du lay jeeka dee du lëf nen mu sax far mu dul am la yow yow bàmba mii laa di wax yow ci gën u dee seen siyaaree ka mokkoo ko naw lu dul am la am laa ko gën maa ko wax lu far for lu dul ndaw sa ndaw taa ko raw ku far ndaw sa doyloo ko doo gis ku far ndaxam ndaw sa dee tey faraatoo ko ndaw ku digtal si ab ndaw mu jox koy cëram te feebal ko laaxal ko laafu karaw sëriñ jot mu tëdd ak maroomin faram ba koo fii cëram kon na wax mooy ca kaw ku far la lu dul ndaw sa ay nax la far lu dul ndaw sa nax la te day nax ni ndaw te far way jërëm loolu dul jël duur mu jël yow mu far woowu moo gën di ndaw nga xam faru bon sax bu jël ndaw sa gën te ndaw sii ma gis ak kanam dootu sew la muy bëgg yëmbul la muy wut teewul ka koy jël du sàggan du ci yey nelaw danoo dàq mbooloo aku juru ba jot te ak baax a ngi bëgg raw ciy jala kuutu waa ji mbooloo di war dal du gis kuutu nag ku mbooloo taful gis tala te koo gis lu dul yàlla muy saf ko it lu dul yàlla nii maa ko wax dëgg la ku mas yàllaaw nit ako jur du saf fi saf kol ko la saf asal yëggu la ku fas yàlla moom addinaa ci ndigam te doo doo ko soppit ñërog jant la ku mas yàlla moom addinaa ci ndigam te dootoo ko soppi ngir jënt la xarit lépp luy tee nga mos dee ko daw atay nit ñi ngir moo la saytaane la ñi ngay sell sellal sa xol set wala nga far dëdd dunyaa te luy noonu la ku lay war faral war ko jëppul waram te dunyaa waram yii ku déegul ci la faral dëdd far mun mbéeru ngir ku nii wutal lay ni nit sax bu wér war na la ku seetal sa bii rek corak am si jët bu seebal cere lay jógee teggi la ku duy sa falak fa guddoon yaa ci yëpp yoo yàlla yow kon ganam jomb la ku dul dox di xemmee na koy yëpp mu dul alal gaala ku nit ndaxam gumba la ku jóg ngir wutee nit asal bukk la ku jóg ngir gadaw nit ñu ne wuute la jaam am lu ak ngi ni ngir bëgg nit akul di ñu ne ñooy la ak tànk la royal yow ya daana guddi nii ku ñu te dul fee ñu ngir bëgg seen topp la muy seetu baa ngi fa bal seetu nag ba xam takk nga ak bon bonam takku la fa bal dal di seetoo te loo gis sa at ndegam dëng nga buur ak ñoom takku la defal lépp luy tax ñu naa yaa fi gën te daw lépp luy tax ñu naa baaxu la banaa lépp maa ngi ci sab atte tey fa ak naa lu dul yow falang naa ko it fa ak naa lu dul yow ci mën ñu rot falang naa ko it tee ba dootul ñu nit fa bal nag sa bopp ak sa mbir def ci man te daf na murit dëgg buy sab xarit dinaa wax ci yow nag lu tax ñëpp xam lu tax kenn amul soow ak penku it ba ngay jàpp xaalis di dëddoo te bañ atee sànni ci jax garaw fépp nit ba ngay wéete kay mun atee dund ñax ba yéefar ya boobee nga fam ñëpp nag ba ngay jàngatee bind ñuy foote mooy te sag wet nga sut mbatte moo leen ñu sut ba ngay jaamu yàlla ka way Mustafa te kenn nekku la yow nga am say mébét ba ngay xii fa kay mar te dañ cee bu rëy waxoo kenn say lor nga kenn mal ñamat balay kerte daa wër gannaaw ak kanam te yaqul la ngay def ngaraw am xarit ba ngay damm say ñii te kay togg ñam ku jóg romb lay lii nga di yaaramit ba ñuy naan ak ay fóon ak ay toxo di taw te sag wet nga am lool bu feeñoon mu rët ba kenn déggatu yëpp yow déggatu ci kenn lëf nga am may bu kenn sooba nit ba ñuy yi fekk imaaj ngay jàpp yow ak ay julli boobee nga saf yàlla it ba ñuy woote ngay julli ba ñuy jiwoo ba sal mi nga def mbir te yoon nen ba it wala yi toppandoo say ci lëf moo ko dof nga yow doomu roomam te doomaa sa nit wala yi toppandoo te mu dof te nga dof ba ñëw fii nga ñëw fii rafet moo gënit lay topp ndoo tee mu dox tee nga dox dañuy tee ngënee lii rafet moo gën it te ku jëkkay bay bu dee topp ndoo ka far naan ku def ay biram yàq it ku def say lu dul jox la boppam biir te bañ laa defe naw la day ay ko kat dangaa dox te bari ñëpp dox nag te dox te kenn nag la dox am nga jëf ju mat dangaa boole waa àll ak waa kërit te loo te jël seen ndam lii rafet dañoo wacc saw nit ñu bon al kufar da ngaa dem te fab ñëpp yóbbaale fat da ngaa mën ci tërmal ci ab àll it ku xam-xam ni yaa ëpp yow ñëpp fit ke rek aw ñoo bokk nag yam fi yow lu am doo ca bew doo ko jeg ci xulit ku dul yow gëtam yaa nga jëm jenn wet te yow nag ci bët yaa nga jëm gépp wet ku dul yow dafay may boroomam ba bët biir mbaamu may far nga bootam nga bët dul yow dafay may boroomam ba bët biir mbaam may far nga bootam nga bët la may yàlla yow bët te may ñëpp bët te wet gën mu tëkkul sa wet yëpp pakat ku dul yow bu gee wet te tee geeti lim bu gee wet ga tee fëtt yit geet jot te wet yëpp pakat yow te wet yëpp ko jot digal baarakallahu sab kem amut te noo ngoogu saw wet di say basiiray fajal yaa di fajkat te yar tey dasut doxal saw ñu diggante ñëpp ak tawat ba kenn dootu gis kuy jaloo kay tawat na koy yëpp far sedd mbir yëpp jub bu kenn ñàkkati yiw ba fir daw siit te mboolem ku lay topp nag dee ko wan lu koy del lu jëm ak rafet njorteet te fenkal ci mboolem ku lay jox mbiram te leeral ko leeral barab bam ne dafal gaay lay topp kay topp far lu biddu wati weere kiy jant it nga far seetu na yow ci suuf ak sa kaw te mbir rëy ci waa suuf ak waa kaw ku def nii murit yoo defaroo gërëm ñu lay dimbalee kay jëgal faw it ñu lay dëkk nuy faw nuy dëkk ci yow ñu far bind te jaamu téeméeri at te sun at mu ñëw wet ci téeméeri at lu ab jaamu kat jaamu sellal ko it te bàkkul mboolem mu jëm kon ci nun ci ay tiitat yi lorteeg ëllëgit te jàppal nu mboolem mu riy teg gi kon ci ay may ak i cant ak jàmm it te leeral te baaxal te neexal yëral te diggal ñu kaw nu doy noonu nu it te leeral te baaxal te neexal yëral te diggal ñu kaw nu doy noonu nu it damaa nu yëral way ci loo ñuy digal te saa yëpp ngir yàlla ay yenn nit te bépp jullit def na nit ci xolam te dàppul munaafiq xëtub yéefarit sama xol na fees ak tëlit ak tërëf samay cër na nit ci ci loo di lewut li ngay soppa tey tan may far ci nun te naa ci sa def tooga wuy laa nu dëpp lu dul yow na may daw te naa koy dawut te naa lay fajal saw soxlaa ko wut yow xol bu yor pëñ yor lis nag yaram naa lu dul yow ci man nii mu rot yaa xol bi yor cër yi yor lépp nag yaram naa lu dul yow ci man nii mu rot ku def bay ndamoo baayam it mbaa ndeyam dafay bay ndamoo yow sëriñ bee ka gëm ku def bay fexee xam alal bee ka xam dafay bay fexee xam sëriñ bee ka am ku def bay sa bug jur di boolee teer dafay bay sa bug jur di tabbal cëram ku def bay fexee def cëmam ji mu jëriñ dafay bay fexee def ngaram bu mu gërëm ku def bay fexee dem di laaji juróom dafay bay fexee dem di dolli juróom ku def bay fexee jàpp yàlla yi jëfam dafay bay fexee jàpp ban bay jëfam murit bul yëfam yow garab goo jëfam ndegam bëgg ngaa am ngërëm sa xoram yëfam ban ban muy gën yëfam yàlla yi